salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi seetaan Ngalam TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax baax fi leen daan nuyoo tey nag ñu nekk fii nga xamante ne nii mooy Pikine noor quartier bi ñuy wax euh, sëkk bi fu ko nag macha allah euh, ci sunu ginnaaw nga gis euh, situation bi ni mu demee ci ndox mi nga xamante ne nii ndoxu nawet la mais daanaka yàgg na fi lool. daanaka amuñ ci benn jéego boo xamante ne ni def nañ ko fi loolu nag kàddu yi nga xamante ne ni ñu ngi jóge ci ñi nga xamante ne ni mooy riverains yi ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir karti bi loolu nag. ñoom la ñu bëgg a ñëw euh, seet si dégg leen suñu micro ñu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne mooy situation bi xamante ne moom moo fi xew kon daal loolu daal la leen waa Ngalam TV ñëw jëlal sil ci situation bi nga xam ne moom la ñu fekk ci ndox moo xamante ni waa boor bee dañuy wax ne ñoom léegi am nañ jàmm ndax léegi ndox mi balatu fi mais léegi fii moo indi problème bi fii nga xamante ne moo taxaloog fi nga xamante ne nii mooy euh, arène nationale bi kon daal loolu lañ leen jëlal fii nga xamante ne nii mooy quartier sëkk bi fii ci Pikine Nord ak Ngalam TV ñi dalu jaar. lan yan kàddu nga mën a wax situation bi nga xam moo am fii du ndox mi ndox mu bon mi daanaka. Ah. yàgg na fi daal ci ci ci ci li mën a wax. waaw situation bi moom vraiment c'est alarmant quoi. depuis très longtemps moom ça ne cesse de couler xam nga lii moom vraiment même suñu crise sax on ne parvient pas à dormir parce que et puis ndox mu salte bi bon même sama salle du ma fi toog ci ëtt bi laay toog am na ay yu sew yu fi nekk yooyu sama doom yi fan yii dañuy sëqat même sama doom dafa feebar vraiment c'est désolant quoi mais lii moom c'est c'est autre chose fii zone malsain là quoi il y' a tout un il y' a des charrettes il y' a tout là donc vraiment bu ñu ci mënoon jàppale ñu baax quoi parce que lii moom ça ne pas continuer quoi nous dëkk ci avec ces désordres là c'est c'est c' est puant quoi lii vraiment bon on ne peut rien on est désolé quoi mais bon vraiment on a ban situation mais lii moom c'est catastrophique lii nit nous dëkk lii ay feebar dong donc on n'y peut rien chaque fois damay jënd de des fois damay jënd ay comment dire encore ay diluant euh, du ko sotti fii ak demee on ne peut pas respirer.

donc vraiment c'est désolant quoi. non même pour nous, c'est tous les tous les mois tous les chaque jour des quoi donc bon c'est vraiment solution on n'a pas de solution parce que nous sommes bon solution moi, nous responsabilité il faut ñu problème quoi donc bon c'est tout ce que j'ai à dire quoi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp man nag Ahmed Bala tudd dëkk fii ci quartier bi bi ñu dëkkee fii dëkkuwaay boo xamante nii benn lañu waaye nag li tax tey may wax du mën a wax moo tax may wax presque dañ ma forcé wax ji te ñun suñuy jël kàddu rek dañ koy jël ci ndigalu ki nga xamante ni mooy sëñ Cheikh Oumy Mbacké ndax moom moo ñu boole fii njaboote ñu ñun ñëpp maa ngi Moustapha presque ñoo ko fi représenté ci côté bii nee na fii lépp luy baax te new ma fi taxawal leen ma kon tey dañu fi taxaw ci turu sëñ Cheikhu mi Mbàkke lépp luñ fiy waxit pour mu baax moom moo tax ñu koy def pour mu baax bu loolu weesoo nag ONAS moom bañ leen sollicité euh, directeur si laa njëkk a woo bi ma ko wooyee mu mettre ma en rapport ak équipe technique am mooy monsieur Samb bi ma ko woowee moom it mu dirigeante équipe sonn ci boobu ba léegi parce que tamit affaire bi yàgg na ci mais taxuñu ci woon liñ ci war a dox mais quartier bi yëpp bi jogee taxaw di ci dox liñ ci war a dox ci la jéego yi commencé saafara boobu ba tey nag malgré que inondation yeeg mbënd yeeg ñàkkum jotu ONAS yëpp ONAS ñu ngi commencé def ay fii yoo xamante ne population bi ñu ngi ciy commencé gis seen njëriñ. ndax boobu ba tey seen moto pompe baa ngi nii di di di di di pompe sànq ba ci si démb ba tey pour mën a soulager population bi ndax dañoo xawoon dugg ci biir kër yi waaye boobu ba tey ñu ngi def ay effort pour soulager population bi parce que tamit ci nawet la ñu nekk moyens yombul mais ñoom ñu ngi sacrifié wu pour fexe fii baax ndox mi nag côté bële la nekkoon ci ay réparation mu am quelque défaillances mu waral ndox mi jublu côté bi mais comme ñoom ñëw nañ di corriger quelques défaillances ñu ni dañ leen di encourager pour ñu fexe saafara lii ndax lii bu fi yàggee lool it mën na jur jàngoro ay xale dañoo bëri fii te ñun xale lañ dëkkal presque ñun ñoo dëkk ci taatu ndox mi waaye nag bañ leen ko waxee ba tey ñu ngi ciy def ay waaw. léegi bi maanaam comme ni ko waxee léegi am na ñoo xamante ni daanaka fële la ndox mi daan balle waaye ñoom dañoo wax ne léegi ñoom am nañ ndax léegi ndox ndox mi di waaw comme ñoom am nañ jàmm ñu dañuy ñaan yàlla am jàmm comme ñoom moo tax ñu sollicité ONAS ONAS ñëw fi indi fi dispositif teg ko fi dispositif boo xamante ne pour ñu nit may ñu jàmm comme ni ñu mayee waa jàmm côté bële jàmm jooju népp nag mbooloo bi ñoo dajaloo ñëpp di ko dox pour jàmm jàmm. kon nag ñu nit dañuy dox def comme ni ñee def rek euh, di laaj li nga xamante ne mooy ñu defaral ñu te li ñu commencé laaj ñu ngi ciy commencé gis résultat ñun kay dañu bëgg ñu gën a góorgóorlu ci ba ñu fàtte ko comme waa côté bee ni ñu fàtte ñoom it seen problème. bi dañuy techniquement loolu moom duma ko mën a définir parce que maîtriser wu ma réseau bi man daal li ma concerné man ci Orange laa branché. Euh, retour à mais on a déplacé nous nak autom pompal ma sama ne sayu problème amé ak ko xam ma am fi problème téléphone on a defal defal voilà. Euh, euh, est-ce que pour régler problème problème définitivement parce que bon comme poche bouchon et bari. moo waral ñu indi fii lii temporairement mais équipe bi koy régler définitivement ñoom ñu ngi ci ñëw nañu dem ba def étude yi faisabilité bi xool nañ ko xam nañ ni mën na nekk dañ ne ci fan yu néew dinañ ko def te yaakaar nañ ne fan yu néew dinañ ko def. daanaka ndox mi du daanaka euh, nawet bi rek lay kii mais daanaka bu nawet sax euh, day jékki-jékki rek rigol yu bëtt sonal li nga xamante ni askan waaw en général nag euh, nawet la daan ñëw mais léegi des fois à part nawet da daan ñëw. lu koy waral lu ci bëri que manque de couvercle la ci daan mais bu ñu leen ko waxee ñoom automatiquement dañ koy ñëw defar mais nag poche bi moom da di poche bu dëgër boobu ba nga xamante ne ñoom ñun def nañ étude yëpp ba trouver solution bi ba bëgg ñoo indi solution te vraiment xam naa ne dinañu indi euh, euh, di leen defar leen ñun moom dañu yaakaar ne rek lii moom liggéeyu état la am na ñu ma ko wax. nee nañ yegg nañ ko ko nag comme man yegguma ci ñoom waxuma leen ko damaa xam ay nit rek euh, bokk ci gox bi yaakaar ne defarañu war a tax ñun ñëpp moo tax ma def ko waaye du xeeb maire bi fi nekk ndax nit moom du xeeb ki nga xamante ne moo la jiite xeebuma ko ci benn yoon waxuma ko ko nag waaye dama jàpp ne am naa ñu ma xam rek te ñooñu war nañ ko mën a regle rek moo tax tamit sama xel fàttu mu jéggi maire waaye su doon uh, xel fàttuwul woon maire laa koy njëkk a wax waaw. léegi li nga xamante ni ndox yi moom war a waaw ba tey ba tey loolu uh, ci ci ci ci ci kiiwu ci kiiwu compétence su la ndax lu dul sa compétence moom loo ci wax da ngay wax li nga xamante ne mënul nekk ñoom nag ñoo maîtriser seeni i ñom ñom ñom peut être buñ fi nekkon ñom dinañ mëna wax capacité yi nga xamanteni ni nii tuyaux yi mën nañ ko jël ak mën ñu ko jël. yeen yi nga xamanteni ne yéen a fi dëkkee tey tuyaux yi nga xamanteni ni war naa mën a jóge ndax ndox bo xamanteni ni mi ngi jóge ñu gonas lay ñu ñuy jóge way bu dérainer ci fi euh, normalement ay tuyaux yoo xamanteni ni yi tuyaux yi maga maga mag ne ko war di compétence bi dafa na waaw ONAS mom defe ni mu jógtee ni defe na dina rectifier yi lepp ndax ni mu jóg see commencé naa jóg pour defaraat xool réseau yi nga xamante nii yëpp dañ leen a agressé ñu defaraat ko tamit ñu ngi ci lancé boobu di defaraat parce que côté bee boo xoolee li ñu xaw a gën a sonal côté bële la réseau bi pareegul fi ñuy fi ñuy defar mais bu pare woon dina xaw a soulager bi waaw. waaw li may jeexalee di sant yàlla di julli séenant bi di gërëm Ngalam bi di la gërëm mi yow naar yow mi ma forcé lii malgré que dama ko bañ ndax man sama yaram neexul wax ci waxu quartier bi defe naa ne yàqul dara te it booy wax te doo sosal kenn rek am na solo quartier bi nag ñëpp a mànkoo jiital kiñ naan alaaji Mor Seck tey nag dafa fee nekkul moo waral sax may jël kàddu boo gisee ma daanalee ko ci moom laa waroon njëkke waaye ñun dañoo am suñu kilifa goo xamante ni dañoo yebal ci quartier bi mooy sëñ Cheikh muy Mbacke maa ngi Moustapha ñoo ko fi représenté pour lu baax ci koñ bi. te moom waxu yemul foofu sax dane lépp lu ñuy dugal xaalis ñu war ma cee laaj xaalis nañ ma ko jox nañ ma laaj kon nag ñun taxawaayu sëñ Cheikh mi lañ fi taxawee di defar ndax euh, jullit ak ku dul jullit ku ne defar moo la war te ñun fi ñu toll nii ci réew mi jàppale ñi fi nekk pour defar rek mooñ tax a jóg waa leneen taxu ñu jóg maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di masaw ñi nga xamante ni tamit dañu loru ci ndox mi ndax ku sañoon doo ci loru waa ONAS mi nga xamante ne sax ñoom ñooy euh, ndey ji mbilik ñoom bu ñu sañoon kenn loru ci ndox mi kon nag comme dañ cee loru euh, ñu ngi masawu ñëpp di wax ne nañ gën a muñ rek te gën a jàppante tey gën a soññ waa ONAS rek pour ñu gën a mën a baral jéego yi loolu laay tëje di nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp di ziaraat waa Ngalam. waaw waaw maa ngi tudd Ibou Do fii parce que maay waaw fii laa juddoo fila laa waaw ah, fii pratiquement ñu bari xam xam naa ñu bari quoi waaw ah, franchement parlé fii moom fii moom ku ci dimbali daal lañ bëgg quoi parce que sonn nañu xam nga seen jabar yi ñu ngi feebar seen doom yi ñu ngi feebar instant xam nga loolu quoi vraiment dimbali rek lañ bëgg quoi magal gaay ñu ngi mais bu ngeen dina dina dina baax quoi waaw waaw waaw waaw parce que temps base maire bi ñëw na fi ak gaay mi quoi ne affaire dañ ko defal mais ba léegi quoi quoi raxoote nañ tuuti quoi. waaw waaw fii sonn nañ de. non metti rek metti wax de yàlla mett nañ sonn nañ wax dëgg yàlla mett na sonn nañ lii moo xam nga te baaxul hygiène doo nooy dund boo dund mooy loolu ay xel lañ yor te day metti quoi hygiène day mag hygiène quoi mag hygiène trop sax. ba si biir kër yi si biir pompe chaque saa dañuy pompe. chaque instant dañu bopp dañuy pomp te taw fi taw bu garaaw comme bu tawee ko ñu sàngin fu jëm bu tawee taw bu garaaw fu jëm ndax ku dimbali ku kese la nga bëgg quoi a euh, a wax ci situation bi nga xam moo nekk ci ginnaaw bi ndox ndox mi de maanaam sonal nañu liñ ci mën a wax ndax tey bu ñu sañoon ñu dimbali ñu ndox mi jóge fi liñ si ñaan nag mooy ñaan ndimbal ñu fexe jàppale ñu ak ni ñu mën a jàppalee pour ndox mi dégagé wu ndax bu dul dara mooy feebar mën na la ko jox ak yeneen conséquences yi ci nekk kon donc li ñuy ñaan mooy lu ci waay mën pour mën ci def ndimbal jàppale ñu pour ndox mi jóge fi ñu gënal loolu daal la ñuy sàkku pour ñaan ko. Euh, waaw. waaw ba léegi daal defuñu ci benn jéego waa ONAS daal ñoo fiy faral di ñëw suñu ñëwee defar defar defar daal di dem affaire bi ba tey mu tëw e, e, saafara mbir mi waxuñoo ak ñoom nag ñoom nag dañuy ñëw rek gaare seen oto defar laal tuuti daal di dem mais boobaak léegi ndox mi fi mu ne nii dafa dem ba soppeeku sax yore beneen xet yore beneen melokaan. waaw ndax yàgg na fi ndox mi yàgg naa bal loolu kenn mënu ci dara nag ñi fi nekk ñi ci mën a jàpp mooy ñi nga xam ne mën nañ ci def ndimbal ak wàllu liggéey ba ndox mi war a mën a dégager wu loolu daal lañuy ñaan parce que ñi fi nekk ay borom kër ñoo fi nekk ak ay xale ñoo fi dëkk ay xale ñoo fi dëkk ak ay borom kër yoo xamante ni seen i njaboot a fi ne daal ak ñi fi nekk di liggéey kon bëgg nañ santé boo xamante ni baax na ci suñu yaram parce que lii baaxu waaw feebar lay joxe buñ sañoon ñu ja jàppale ñu def si ndimbal euh, ndox mi dégagé wu jóge fi. daanaka dañuy waaw bu dee wàllu branché foos yi moom yooyu bon mën na ci nekk mën na ci bañ nekk mais lii moom li ci ëpp mooy regard bu fatt lañ jàpp ne moo ci nekk. waaw taw bi nag da ciy wàll si mais regard bi fatt moo waral mu gën a mel nii parce que bu fekkee ne taw la wala fo euh, fons yi ñuy kii bu dee fattul dina dem mais bu dee dafa fatt ak taw ak lu mënti doon bu ñëwee day buuse day bal kon li ñuy gën a jàpp mooy fatt fatt la war a doon waaw loolu la loolu lañ ci xalaat ndax di yéen a ngi euh, yenn saa yi dañuy gis sax li nga xamante ne moom ay pëne ñu koy sànni ci biir rigol yi tamit waaw lool moom du neex a surveiller parce que tey jii nit mën na bàyyi ba guddi mu ñëw jël ponom wala ay yére wala ay saaku sotti ko ji te loolu doo ko gis waaw bëccëg gi rek nga mën a surveiller nii mais guddi gi mën nañ def li ñuy def guddi gi yow loolu doo ci xam dara waa comme côté boobu yow mënoo surveiller ba surveiller lépp daal waaw li ci nekk mooy bon nit ñi seen bopp ñoo war a am euh, nu ñu war a doxalee bañ bañ leen wax yenn yi parce que fii bu doxee bu euh, regard bi bu dee dem bu demul yëpp ñëpp la ko la la la setal kon ñi koy def ak ñi tax muy fatt dañoo war a suuraale ñi fi nekk ak ñi fi jege waaw loolu daal moo ci nekk. waaw solution bi daal mooy ñi nga xam ne lii seen wàllu liggéey la. ñu jéem a ñëw fexe ba indi fi équipe bu doy ñu mën a taxaw jéem a fexe lii mu évacué wu jugee fi parce que ay yoonu yoon indi nañ fi seen oto yi waa ONAS parce que lii liggéey ONAS la du du kër fenn ci waa kër yi fii ñu fi jege ñu mën a ñëw débouser ko wala ñu euh, tànq ko ñi fi nekk ñun ñi di fi liggéey ak ñi fi nekk duñ mën dara lu dul muñ rek ba keroog muy deñ mais ñi nga xam ne loolu mooy seen wàllu liggéey di waa ONAS kese ñoo mën a fexe ba taxaw lii mën a deñ loolu nag mooy ñu indi fi équipe bu doy xool lan mooy solution bi ñu mën koo jéem a defar waaw loolu daal laa gis mooy defar bi waaw jërëjëf. rajo mi ngi noonu loolu lañ leen jëlale woon fii nga xamante ni mooy quartier sëkk bi fii ci euh, Pikine Nord comme ni ñu ko waxee macha allah kon dégg ngeen li nga xamante ni mooy euh, ñi nga xamante ne ñoo dëkkee. fii nga xamante ni la situation bi am yi kàddu yi ñu fi yëkkati kon daal loolu lañ ñu woon la ñuy ñëw ah, équipe bu Ngalam TV ñëw jël fi xool situation bi nga xam ne moo fi nekk ñu càmbar ko xool li nga xamante ni moom la dëkkandoo yi wax wax dëgg yàlla ci ay kàddu te gis ngeen ko yéen ko déggandoo kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen gox incha allah rabi ñu càmbara leen li nga xamante ni moo fu nekk ci ay situation yu yu yu yu désolant wax dëgg yàlla di jaajëfal ñëpp di jaajëfal altestima mi nga xamante ni moo doon réalisé li nga xamante ni mooy émission bi kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ni ah, ba beneen numéro rek incha allah rabi ci Ngalam TV